koros génneel bagage yi fekk bagage yi nekkate li ñu dencoon lii moo taxoon denc chaque fois day gën di doy waar macha allah non kenn doo xamul yàqalul kenn dara non kenn doo xamul impact mhm. euh, souhaité ko woon mhm. mais bu amee ba pare mhm. li ma la wax ci ginnaaw loolu mooy solution mais impact moom dana ko am parce euh, am nañu auditeur boo xamante ne bi may xaritoo ki dem kooku noonu dina ma wax ndema auditeur nangam euh, journaliste nangam wala animateur nangam. xadi fay na ma xam nga kon bu demee loolu loolu du ko gënal. kon xaaruñu ko la si dem tey jii comme ay moroom. non euh, man moom euh, xalaatuma ko parce que ma dàq voyagé nag. jëm ci yeneen rajo mais pour l'instant alhamdulilah maa ngi ci jàmm c'est Futurs Médias je crois que fi ma doon wut foofu la.